بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم fa ida nahaytukum an cheyin fajtanibuuhu wa ida amartukum bi amrin fa'tuu minhu mastataatum sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbokki internet yu suivre seen chaîne préférée Mak TV fu ngeen mën a nekk fi mashariqi l ardi wa magharibiha ñoo ngi leen di nuyu ci waxukaay bi seen mbokk Mouhamad Ndiaye Thiam di ko ànd ak sunu réalisateur yu baax yi ak sunu caméraman yi ak monteur yi yal yàlla defal leen càmm di sant ñëpp di baalu ñëpp di baal ñëpp yal nañu yàlla boole baal xam naa ni ñu ko miine ci sunu yóbbal tey sunu waxtaan bi dafa dellu ci benn wax bu am solo boo xam ni sang bi sunu royuwaay sunu sëriñ sunu soppe moo ko wax muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di ñu bàyyiloo xel rekk ci yenn xuuse yi ndax ab jullit wóorul xuuse ndax bëri loo xam ni ñëw na ci diine ji tey araam li ko waral mooy am ay saxaaba yu bari luñ doon laaj yonent bi bari na loo xam ni ci diine ji ñëw na nekk obligation léegi li ko waral mooy ay saxaaba yu bari luñ doon laaj yonent bi kom nag moom mooy seen sëriñ mooy seen royuwaay mu leen doon bàyyiloo xel ci yenn yi ndax it nag saxaaba yi dañu xëroon wute nañu ak ñun ci jamono ndax ñoom dañ doon laaj seen mbiru diine dañ doon bëgg le savoir dañ doon bëgg yiw dañ doon bëgg mbaax moo tex léeg-léeg lu leen jaaxal rekk ñu laaj ko sang bi wala lu sang bi def ñu laaj ko lu tax nga def ko moom nag mu bañ ñu sonal seen bopp mu woo leen bés ba ñu ñëw mu ni leen am na lu ma seetlu ci yéen su ma sañoon nag doonte xam naa fi ngeen tollu ci bëgg xam ak yokk waaye lu ngeen gis ma jàpp ci sama njàmbur tereew leen ko rekk am ngeen sañ-sañu def ko lu ngeen gis tamit ma koy def am ngeen sañ-sañu def ko waaye jarul ngeen di laaj lu pourquoi ma koy def mu ni suma ma leen santatee benn mbir na ngeen ci def seen kemtalaay kàttan na mu gën a rafete na mu gën a selle su ma leen teree benn mbir nag na ngeen ko bàyyi ba mu jeex tàkk li ngeen gis ma maandu ci bu leen ci sonn di ma laaj di ma questionné mu ni leen dafa am ñaar yoo xam ne yàgg na alak ñi leen jiitu ma leen di dawal alkande boobu te ñaar yooyu paasewul laaj bu bari sa kilifa ñaareel bi wuuteeg sa kilifa mu ni ñu bari ñi sanku ci xeetu njëkk yi dañu daan bari lu ñuy laaj plus raison que laaj bu amul njariñ plus forte raison que li ngay laaj soo ko ñàkkee xam wàññiwu la yokku la kon laaj mbokk yi ñu bàyyi ci xel képp koo xam ni nekk nga njaboot am kilifa gu mat kilifa del moytu di àgg ak moom ci laaj yu bari rawatina laaj bu amul njariñ ñaareel bi tamit ngay wattu di juuyoo ak moom ndax ki nga jàpp ni mooy sa kilifa ginnaaw ba ñu xamee ni yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi mujj ci yonent yi la yàlla dogal kon keneen kuy woote yonent nag yaa xam noo tudd ni ma koy faral di waxe walla noo sant ak étiquette bu ñu la mën a jox loolu ay xumbal la rekk waaye yonent ci seyduna muhammad la jeexe ndax mooy xaatamun nabiin risaala nag du jóg continuité la day continue boroom xam-xam bu yàlla baaxal ku sell ku déggoog boroomam nitu yàlla boroom jamono ñooñu ñépp nag mën nañu ñëw continuer message yu yonent bi waaye nag du ñu indi beneen tëralin bu bees xëy na mën nañu indi beneen déggin bu bees mais tëralin yi yàlla jox na ko yonent bi yonent bi tëralal nañu ko su ko defee nag kon ñu war ci bàyyi xel bu baax a baax ci ñaari baat yooyu te mooy di laaj laaj bu bari kila yàlla booleel wala ngay juuyoo ak moom di ko diingat loolu dal na banu Israël ci lu bari ci ay séquence yu bari yàlla di ñu ko nettali biñ ci mën a tënk am na jamono banu Israël am ku ñu rey ci ñoom ay mbokkam jaaxle ndax ni mu toll ci famille bi ñu ñëw ci yonent yàlla Muusa ni ko dañoo bëgg comme sa boroom rus na la nga ñaanal ñu ko mu gindi ñu ci sunu mbokk bi yàlla ci mbaaxam ak sagal ki mu yónni mu yonent yàlla Isa wala yonent yàlla Muusa ngeen baal ñu ni ko bu ñu demee ñu jël benn nag ñu rendi ko bu ñu ko rendee ñu jël benn cër ci nag bi ñu daldi koy teg ci néew bi ci benn ci barab dina jóg wax soxlaam xam nga loolu yomb na dem leen jël benn nag ngeen rendi ko mais ci bëri lu ñuy laaj te mu yóbboo leen ñu sonn ci lool ñu ñëw di ko laaj nag bi nan lay mel ban couleur lay am jóge ca di ko laaj nag bi ban at lay am jóge ci di ko laaj ndax nag bi nag bu ñu tàggat la walla bu mën a liggéey la jóge ci di ko laaj di ko laaj di laaj lu ñu laaj rekk yonent yàlla Muusa indi boroom xam-xami dem nañ ba wax ni mettil bi ñu mettil seen bopp ci laaj yooyu moo tax yàlla metti leen moo tax nag ba ba ñu demee ba xam critères yi daje ci nag bi ñu wër ca marché ba ba sonn ca lool ba fekk ci benn xale boo xam ni woy juróom moo ko fi bàyyiloon yàlla ci mbaaxam dafa bëggoon xale boobu ku yiw yàlla baax mu laaj leen ci prix bu cher supposons nag bu waroon jar deux cent ñu dem ba koy jëndee ay millions li leen ko teg mooy laaj bu bari loolu nag liñ ciy jàng day ñëw ba jamono dangay am sa kilifa bu la yàlla booleel ngay laaj ba ci wàll yii sax nga xam ni nit ñi ñaanlu da ngay am sa benn aajo dem ci ki nga yaakaar moo xam ilimaanu jàkka ji la wala ustaas bi wala ki ñi day ñaan nga dem ni ko dama bëgg nga xoolal ma samay mbir mu xoolal la ni la génneel sarax sàngam demal jënd guro nga saraxe ngay nekk di laaj ndax bu weex ndax bu xonq demal nga saraxe ko ngay nekk di laaj ku góor laa koy sarax ku jigéen ngay nekk di laaj ndax ku njool laa koy jox ku gàtt ngay nekk di laaj ndax bis bii dina dinaa ko war a mën a saraxe di sonal sa bopp ki xoolal ba wax la génneel sarax su fekkoon ni am na ci lum lay leeral danaan la sarax bii kat na mel ndàngam jox ko ku mel nangam génne ko bi sàngam mais da ngay sonal sa bopp benn anecdote bu reelu am na ku ci masa tasante ku mel noonu mais bi waa ji demee ba maar ci laaj yi da ko wax kim koy sarax te loolu day jafe ci jamono ji mu tuddal ko kim koy sarax koo xam ni bu doon wër ci jamono jooju duñ ni mën na bañ a ñàkk am waaye dana sonn bi mu ñëwee waa ji ni ko laaj yu bari yi ma laaj moo tax ma wax la loolu loolu nag nañ ciy bàyyi xel kon laaj bu bari mën na alak taalibe mën na alak ki nga xam ni mooy def tarbiya di wuuteeg ki la yàlla booleel tamit ki nga xam ni yow wóor na la ni sa manqué moo tax nga topp ci ginnaawam jàpp nga ni mat na nga topp ci ginnaawam ba pare kon bu la santee santaaneem mooy warul laal suuf su la teree tereem waroo ca nekk waaye nag erreur d'appréciation mën na dal njaboot ci kër kilifaam éréer de calcul mën na dal njaboot ci kilifaam ah bu fekkee nag dem nañ ba tollu nag ci jamono boo xam ni ñi ñuy yaakaar ay kilifa lañ taalibe ñoo leen di raw su boobaa nag bu ñu santaane walla ñu tere santaane bi fii lañ koy teg tere bi fii lañ koy bañ a def su ko defee nag kon ku ci amati kilifa bu mat kilifa surtout niñ ko waxee woon ci leçon yële ñu bàyyi xel kilifa ñu naan ko sëriñ wuute na ak këriñ wuute na ak fëriñ képp koo xam ni mi ngi lay digal lu baax di la tere lu bon kooku sëriñ la bu la digalee leneen lu baaxul wala mu tere la leneen lu baax kooku du sëriñ neeneen noo ko tuddee yaa ko xam kon gudd gàtt xadis bi yonent bi da doon jàngal ay njabootam ñaari baat yi nga xam ni moo alak xeet yi leen jiitu woon te mooy bari laaj bu ñuy laaj rawatina laaj bu amul njariñ ak diingat wala werante ki leen yàlla boole rawatina muy borom jamono kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp ñu ngi leen di ziar di leen baalu àq di sàkku ci yéen ñaan di leen ñaanal yàlla nañu yàlla dolli sutura in uridu illa al islaha mastataat